حزبنا وسلام من المسلمين والحمد لله رب العالمين Thank you. dana leen ñëw nga nangul leen nuyoo defal bu set ñoo ngi leen di bu set dafa si ne laxasare ànd ak yéen ci bépp nit moo xam bu saree la moo bu bari la dégg nga ko dëppoon ak lislaam maa ngi leen bu baax sant

ndax damay xam ne man genn bëgg laa am muy sëñ Touba lu ca waay dugal nag moo ma tooñ mën naa caa tooñe waaye mun ko saytee moo ma tooñ mën naa caa mën naa caa tërale nit te boo ko seetee xam ne loola la yaayu sama diggante moom te ma man sëñ wax sëñ sëñ bi sa jëb ñu ngi lay sant di la bàyyeeg Sëriñ Tuuba di la bàyyeeg di la bàyyeeg Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di la bàyyeeg borom Tuuba lu tuuti loo xam ne léeg-léeg sax nit di ko nettali ba ci man te xeeb ko waaye yaar yëpp yow allah ndax la ngeen may liggéey lu bii xamaguma kañ lay doon xawma it fu muy yem déedéet lu ñàkk nag ndax ku jàpp ne rek dama ne képp bii ci jox ma rek ab ma ne faj dara jóom na ci Saliou Touré na ci man metti ma lool du ma lool du ma lool maa ngi bëgg ñun ñëpp ñu loxo suñu sëñ bi yow bañ koo boole dara dara dara dara dara dara mosal naa leen ci yet yetti yëf gis mu am jeexee ci yéen ñu may tuubaa dañ caa génne waxtu ngoon waxtu yi nga xam ne moo gën a teel lii tuuti ma génn maa ngi jó jóge xabaar di di jàngale foofu bi ñëwee boo paree ma sol bu rafet ñu may bëgg a génn jumaay Tuubaa yi ñu dew mu xaata ba ak man ne ndekete yow nekk ca loo xam tiit naa lool tiit naa ca ma daal di fee xala ko fa ma del si waat ñëw fii ci bon faraat di denc lépp nangu ma kenn gis loola ñu teg ca ab sali, maange kikosi mwingine ko sali, ay montar ngi ci néeg bi ma génne leen sànni lépp serigne baa ngi woo re serigne sëriñ Tuubaa mi ngi mi ngi ree moom itam boobee nag ca la gën a ne may gëstu seytaane futtiku gi futtiku gu wér loolu li ma gën a leer tekke loo xam ne lii mën naa am biir mbooloo lii ko ca wax mën na caa ndax mën ngaa wax ci biir mbooloo ku gëmuma te ku gëmuma dana dee ma bëgg nanu gën a laxasaayu bu baax te ànd ngir yàlla te bañ a ànd ngir àdduna sa borom boo àndee nit ngir sa borom la ngay wut ko am te doo tooñ kenn leneen nag boo ci sukkandikoo seytaane ngay gis te defe ne li ngay gis आदमी लाएगा देना तब सारी किस्म परमांग डेरे أمان لني الله هنك قلنا ما دير تيلي منك لولا ساير لولا ما سنت وباخ باخ كنت باخ مني لنا ولا فتكم dolliwaat kàddu googu may wax ne ko yow ah, loolee képp képp koo xam ne bëgg nga cër ci sa borom amal Sëriñ Tuuba teg ko fi sa kanam jaroy ko te bañ a mer ndax liñ lay li lim lay jox doo ko xam waaye neen tekk topp ko dana la ko xamale bis boo ko xamee nga ba àdduna boo ba àdduna mutu andoori àdduna waaw lépp ñëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Ibrahima Ibrahima maa ngi lay sant bu baax gàtt bu ma sëkk te it mu wóor ma ne mi ngi ñëw li ñëpp si ci yow mi ngi ñëw te du ñaari baat yooyu li muy tegtale moo di doo doo doo ko faatu te kañ lay ñëwi du ko wax kenn waaye sun borom defal boppam kenn mënu ca loola dara sant nañ la jant gu mat sëkk ndax sëñ bi lim gënoon lim gënoon a bëgg defal nga ko muy ñi gën a jege rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gën a jege yàgg gën a jege sun borom fexe nga ba ñu jege ñooñu ci sa doxin wi ca ca la ñooñu àgg ci yàlla te ku ne defe woon nañ ne àgg nañ ci yàlla waaye àgg ci yàlla jafe na hmm. liggéey bii war naa mën a teg tegtal nit ne li ma ko wax dëgg li ma wax dëgg la ku ne jàkk barab bi ne ma jàkk nit ñi def nii ngir man kooku day xam ne lu lay waaye sëñ Tuubaa yaram na ko de ci Ahmadou Bamba jaajëf Ahmadou Bamba jaajëf Ahmadou Bamba jaajëf Ahmadou Bamba jaajëf Ahmadou Bamba jaajëf Ahmadou Bamba നൽകുകയോ ആണ് ഈ ബുക്കിനെക്കോ ഡാമിലേക്ക് മുഞ്ചുമാൻ്റെ ബുക്കിനെക്കോ ഹറുകൾ വൈകിട്ട് ബുക്കിനു ഡാറ്റ്ബ വാഹു എന്നുകയിലേക്ക് ñun dañu sant sëñ bi bu baax sëriñ bi dafa am lu mu sàkk ni mbooloo mi daa bëggoon ñëpp dajaloo wutal moto moto moom daa bëgg ñëpp dajal ko ñu def ñu def ko jox ko andi sëñ bi moom mii moo koy yow na ko ñëpp yi ñu jox ak sëñ Tuubaa moom képp ko yor ak sëñ Tuubaa moom képp ko yor moom la bu ma la ngir moom dama sax na ko ñëpp yi ñu jox ak moom ak sëñ Tuubaa lépp lu waaye boo ko joxee na ko jox na ko ñëpp jox waaye itam na xam ne moom mooy kan ndax sëñ bi kat ñun ñëpp suñu bëgg mooy mu yàgg loolu mooy suñu bëgg pour bi nag liñ ci am lépp delloo war nañ ko jox ko addiya ñëwal ñëwal si ñëwal bu dul gàddaal yi. yaay taxaw na sëñ bi sëñ bi wax ñu jox ko ba ñu wax ko. ak nit ñi. dana ñëw. ku laaj ñoo nekk si. ku laaj ñoo nekk si. doog leen ñoom ñu laaj ñooti leen ko. ku doon laaj. dañu bokk ni tekk na. bu mbokk mi kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ni ngeen ñu gisee tey jii di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor ñu jàng fulk bi ba mu yegg nii niñ ko tawi sëriñ bi tàmbalee woon bi ñuy soog a tàmbali ci weeru koor yi bis mu njëkk ba tey jii fulk bi mat na kon tey matte gii ñi ñu taxawal nag ay mag lañu ñoo xamante ni bii magi kër gi la ñoom ñëpp ñu xam leen ci kër gi bu baax a baax ku mel ni Serigne Ousseynou Diop mi ngi taxaw ak Serigne Cheikhouna Bousso Serigne Babacar Diagne Baye Saliou Mbaye ak mag ñëpp ko defee kon Serigne Cheikhouna Bousso xam naa moom dinañ ko laaj tuuti rek ndax kat xam nañ leen ci daayira bu ñuy wax neex Nihmatu Rabbil Alamin muy daayira boo xamante ne bii diirub Serigne Saliou Touré ñëwee fii cees ba léegi bu dee it bu muy julli si bu nekk ñoo moom ñoo koy ànd moom mooy yëkkati daan yëkkati xasida yi ba tey jii ñu yegg si fii daanaka 80 81 ba waxtu yi di ay at yu bëri su ko defee kon ñuy sàkku ci sëñ Cheikhouna Bousso mu am lum ñu xamal foofu rek ci bi sëriñ bi ñëwee cees ak bisub tey jii sëriñ Cheikhouna bisimilah. Euh, kon nag jërëjëf sëriñ euh, Ousseynou di wax rek ci li nga tàmbalee léegi 1981 ak léegi ça fait 36 ans 36 35 ans dafa yàgg fanweer at juróom ku ko ànd ak nit te tàqaliku leen xamante ngeen waaye ànd bi moom sëriñ bi sëriñ Saliou Mbacke moo ko sabab ndax bi nga xamee ne sëriñ bi yabal na ko fii ci dëkk bi. mu ñëw fi nekkal fi Serigne Touba dafa dama am sama daayira bu ne HLM Route de Dakar tudd Nihmatu Rabbil Alamin dama bëgg nga ànd ak ñoom ca liggéey ba ba mu ñëwee Serigne bi woonunu ñu ànd ak Serigne Ousseynou mii nga xam ne booba ba tey daara bi moo ko ŋànk barki dem ci laytul xadar dama ko woo téléphone 3 heures du matin ma ne ko sëñ Ousseynou Nihmatu Rabbil Alamin soo fi nekkutoon fàtte nañ ko ndax ñun ñi nga xam ne sëriñ bi suñu kaw la ko tegoon lott nañ ci yor ko waaye fanweeri at juróom Ousseynou xaaruñu ci dem xaaruñu ci ñëw xaaruñu ci woote xaaruñu ci joxe di ko dundal ñu ànd ak sëriñ bi. Euh, fanweeri at ak juróom yooyu nu ngeen dundee ah. jamono ji nga xamante ne bii sëriñ bi dañuy lal fi basang fukk ak ñaar wala lu lu man ñaar fukki nit toog ci ginnaawam ak tey jii. moom laa wax gars yi neuvième jour la fi sëriñ bi ñëw 1981 keroog bi ñuy lal fii fulk bi basang basang gu xonq la euh, Cheikh Anne jóge ci kër ga ñëw toog ñu jiitu ñii nga fi lim léegi ñoo fi nekkoon.

ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di gërëm suñu jëwriñ nag sëñ Seynu Jóob ndax nee naa man keroog ba sëñ bi bindee kayit gi teg ko sama loxo keroog la kayit gi génn samay loxo loxoom laa ko teg kon yaa ngi ne yéen a waajal it gi niñ ko daan jullee ñu ngi waajal gi suba bu neexee yàlla wàll 9 heures dinañ egsi kër gi dinañ ànd ak sëriñ bi defee ko nañ ko daan defee te ñaan yàlla ba mu doon sunu bu mujj ñii ñi ñu jamononte ñi ciy mujj yàlla nañ ci bokk yàlla nañ dund ba mu soob leen ci barke borom Tuubaa man nag sant naa bu baax sant naa bu baax bi ma ci yàlla boole alhamdulilah jërëjëf Serigne Babacar loo ñuy dolli ci loolu ah, sant rek xanaa ñaanal man de li ma ci wax bariwul ñaanal sëñ bi mu yàgg fi rek te wér sëñ Saliou moom ku yàlla baaxee ba nga nekk ci Thiès jamononteeg moom sant ak ñaan rek yal na ko fi yàlla yàggal mu wér lool ak ñi ci ginnaaw